lii amee salaam salaam sama gars yi ah. maa ngi leen di bëggee di leen ziar man la seen frère ah Pape Salif ah Zalex design ah, di doomu Medina ah juddoo Medina macha allah tey nag yàlla def ñu ngi Amérique fii la yàlla def ñu fiy dund mais nag tey li ma leen andil du dara lu benn chaîne bu bees boo xamante ni mu ngi tudd Medina TV. ah channel boo xamante ni macha allah chaîne boo xamante ay médinois ñoo ko créé mais nag du pour médina kese pour muy leen ah chaîne Sénégal la àdduna bi yëpp la fépp fu doomu sénégalais nekk incha allah dinañ fa dem seet la waxtaan ak yow ah jox leen information en temps réel incha allah lu jëm ci culture sport politique ah, lépp du ñu bàyyi dara incha allah man dinaa nar a nekk seen correspondant fii aux États-Unis dëkk yëpp. ku am loo bëgg jàllale ah lu jëm ci commercial. yow salaam salaam sama gars yi ah das yow Salif ah nii fii Amérique ñu ngi nii downtown Providence ah, di leen wax nag suñu channel bu bees bi ñëw na muy MTV ah, channel boo xamante ni ay doomu Medina ñoo ko créé ah, ay nit yoo xamante ni allah seen xel rafet na mais nag du pour Medina kese ah raison de plus mais pour àdduna la pour Dakar pour Sénégal yëpp di leen wax ni pare leen incha allah lépp loo xamante ni information la ci wàllu sport musique ah euh, politique culture du ñu yi dara mu set loolu bañ nañ ko ba maayee nii ak sama benn frère boo xamante moom xam rappeur la macha allah artiste bu mag Nayru. xam nga moom tamit moom sànni si kàddu about the new channel on YouTube. So, Joe, what do you think? Right. First things first, you already know what it is. It's Nairu, aka Nice. Shout out to the newest and hottest YouTube channel, MTV. I need everybody to go subscribe to that. If you need that music, politics, life, sports, they bringing it right to you with the love. All my Africans, stand up. We're doing this together, y'all. Thank you, man. Black Lives Matter. Black Lives Matter. ah sama gars yi dafa mel ni kii taxaw ni moom it doomu Medina la ah mbokk mi yow tamit di la xamal ni suñu chaîne bu bees bi dafa génn muy MTV ah di la chaîne ah, médinoise di la wax yow loo xam ci MTV sama waa ji. rafet rek. waaw ah. mm-hmm. yi ay Pikine yi allah dara dootu ñu di wax gars yi na nañ dem ñu abonné ci chaîne bi. voilà ñu dem ah, ñu mën a am yu bëri xam nga jàpp ci parce que doomu Médina moo ko moom. dafa mel ni sa waali nga laal de. waaw lépp ci Médina gi rek waali doomu Médina la. amul leneen waaw dafa leer. ay lu bees a bees ñu ne lan moo bees ñu ne Médina TV la chaîne médinoise rang nga koy am foofu tega sa loxo ma ñëw. Médina TV laa lay wax yow na ko ñëpp bàyyi xel ni ngeen doon xaar egsi na muy laa chaîne médinoise ñun xale yi Médina ñun doomu Médina nañ ko jël def ko suñu yëfu bopp def ko suñu chaîne dem leen abonné ji si YouTube bi xam nga na ko ñëpp bàyyi xel man def naa ko sama favorite thing so mi ngi noonu bi MTV nag ah la bu bees boo xamante ni ay doomu Médina ñoo ko initié ah macha allah mais yamul ci Médina kese ah, ah ci àdduna bi yëpp incha allah man nag dinaa nekk seen correspondant fii au niveau des États-Unis bañ nañ ko ba ñu ngi nii ah downtown Providence lañ nekk nii Rhode Island mais incha allah fas yéene nañ leen demal fépp fu Sénégal a nekk ah di yëngu ci business ah bépp information bépp exclusivité gars yi na ngeen ko koj ci channel bi nga xamante ni mooy MTV di leen ñaan nag yéen ñëpp ngeen dem connecté wu ah abonné wu si chaîne bi MTV ah bañ ngeen dem Instagram bañ ngeen dem Facebook mën ngeen dem YouTube ngeen ñëpp ngeen abonné si page bi nga xam ni bépp information bu dugg bépp vidéo da koy daal di am si kàttanu yàlla incha allah Medina mooy gagné Sénégal mooy gagné.